waaw ah, maa ngi koy nuyu. léegi nag sëñ Khadim Djiné jàpp leen numéro balaa ñuy continuer waxtaan bi ndax waxtaan bi dina am solo lool tey muy 77 108 79 79 77 108 79 79 wala nga def 77 391 08 08 numéro yi yomb na lool neex naa jàpp Khadim Djiné ñu gis nag Def Guiss TV tey ñëw seet si la lan la Def Guiss TV di xaar ci yow. waaw lu bëree bëree bëri. waaw ndax jamono ji daanaka ñi ci ëpp sëy yëngu na bitigi taxaw na. ñi bëgg a tukki mënatuñoo tukki ñi yor dara mënatuñ koo téye loolu yëpp moo galañaan nit ñi ñi nga xam te ne ñii wàllum kattan waaye nag yàlla dogal na ne yor dëgg yàlla yor nañ fi ay jaaro ak i xob ak ay ndomb yoo xamante ne ku yàlla dogal nga am ko ak i sangat mu ànd ak dogalu yàlla boo ñëwee bu ñu la ko joxee da nga ubbeeku ak loo tëju tëju te sëñ bi maa ngi wax ak yow ne la àdduna lu waaye am te amoo ubbeeku amoo dara lépp mu ngi ci biir ubbeeku xéewal mu ngi ci biir ubbeeku am mi ngi ci biir ubbeeku nit ñu topp la mi ngi ci biir ubbeeku ubbeeku nag daa jafe faaw sa yaram neex waaw loolu nag daa am ay yu bagage mag ñi mag ñi bàyyi woon yoo xam dañ koo karmat ko joxe lu wér nga jamono ji léegi ñëpp maam ku sol dara rek ne day ñaan waaw waaye nag moom moom moom ay tappale moom li bi la doo doxoon rek bis bi nga koy def ak bis bi ko nit ñi xam ak bis bi muy jeex ñetti at lay doon waaw ñett yooyu waaw waaw waaw léegi moo tax nag ñun wax dëgg yàlla bi ñu xamee ne toog nañ ci lu leer te yàlla ñu teral ñàkku ñu dépense yàlla xéwale nañu ba li ñu yor ñu ngi koy bokk ak ñu ñi moo tax fii ñu toll ci jamono ji maam doonu sax ñëpp la ñuy ñaanal moom doonu ñëpp maam amul amatuñ jot waaw. maa ngi jégalu kii bitim réew yu bare bari nga xam te ne fii dañ may woo duñ ma jot waa Paris Canada su ma ñëwoon tudd damay tudd États-Unis waa Chine rawatina sama dëkk ba Dubaï. xam naa ne yi moom xam naa nañ ma xaar koor gi incha allah rabbi fa laay woor seebu. maag moom sax dinañu àndandoo Dubaay. il faut ñuy dem Dubaay def fa émission ak sëñ Xaadim Jinne laaj bu ma lay bëgg laaj nag jinne ji lan moo ko ci tur bi. waaw jinne ji moom lu yàgg la loo xamante ne. <laughs> waaw suñu boroom xam nga dafa indi ci euh, dafa indi ci yenante bi cent vingt quatre milliards mu jëlaat ci loolu génnaat ci vingt cinq jëlaat ci vingt cinq yi tànn cinq yi génn ci yenante bi sallallahu taala alayhi wa sallam dugal ko ci alquran. cinq yooyu nag ni ci génn yenent bi tànn leen la suñ borom bindee nit ñi nit ñi dañ leen di bind kenn du leen xam ba yow mal xiyaam duñ am xorom ñii dañ leen bind ñu am xorom waaye duñ am dara ñii dañ leen bind góor ak jigéen bëgg leen suñ borom nag ni mu defee loolu daa am ñu chaque at daa am ñu chaque chaque chaque chaque jamono rek siècle yi rek daa am ñoo xam da leen di wàcce ñi mu tàggatal leen ay nit ay góor képp ñi ay jigéen ñii góor ak jigéen ñii ay jinne man nag suñu borom daa bokk ci nga xam te ne man damaa tàggatal yor tur yàlla di ko doxal ba suñu borom boole maag trois cent hmm. ñu ngi sama ginnaaw gii toog ma wax ak yow. trois cent treize limitation. kon fu ne ñu ngi may gis. ñu ngi ci biir salle bii yow nga nga xam. ah sama gars yi maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu samay xarit la. waaw man sa moom moom moom man nee naa leen ñu sedd ba nga génn rek ah. incha allah rabbi. Ah, man maa ngi koy sentir nii sax sëñ Xaadim jinne laa nekkal de léegi nag def leen lànk nag. léegi nag jinne moom. Mhm. waa xelal ci jinne wala incha allah li yaxbadu jinne moom nit ñi dañoo jàppane nit ko nit nit moo ko gën. Mhm. moo ko gën lépp. Mhm. doomu aadama wala xadd karam naa benn aadama suñu borom li mu def ci nit ak li mu may nit may ko benn mala buy dund. du jinne du rab leneen. léegi nag ci biir loolu ñun jinne yi dañoo ànd ak ñoom képp ñuy soxla dara ñu leen koy jox ñuy bëgg dara ñu ñu ciy dimbali waaye teewu nag li ñuy fajee ajo du ay jinne ay jinne yii moom daanaka ñu bari day jàpp ne jinne moom lu ñëw taxaw ni mën a faj aajo non non jinne intérêt lay am ci yow da am loo yor ma koy soxla parce que da mag ñëw ne damaa bëgg a doonaat gone ngam am ko jox mu jëfandikoo ko mën naa doonaat gone loolu ay sekkare la yoo xam ne da koy jëfandikoo waaw moo tax nag parrain saa gis ko naan diw jinneeg yorul jinneeg nangam jinne du dara doomaa doomu aadama gën doomu aadama gën lépp lépp moo gën li yàlla bind doomu aadama ci gën léegi nag gëm googu ñu gëm suñu bopp ba nga xam te ne maam tey jii boo nekkee aw tur yor ko di ko doxal moo xam moo xam jalaal moo xam moo xam moo xam moo xam man daal ñun luñ mën a yor moom du ñor zulmaani yu maa duñ yor xam-xam bu ñuul duñ duñ yor di di di ut deret di ko tuur di ut ay jalang nga xam te léegi jamono ji moo xew da gis sëriñ bu ne ci internet takk ñedd béjjën jël ab nangam saxal ko cigarette xoolal wala hosbila majaal sixaar wax jotaay way taxe di li suñ tubaab di wax te sudu sixaar léegi nag lool bari waan na bari woo xamante ne lu ci ëpp li tax ñu gën a gëj a génn sax loolu wax ndax day dem ba am lu ñu naqari te gis nga sëñ bi alxuraanu yàlla ji gis nga alxuraan lu mun a amul ak turu yàlla yi ak istighfar astaghfirullah lu mun a amul mais nit ñi nag mais nag nit ñi léegi daanaka boo leen waxoon ne leen rawxaan ba yéeg na fale wala jinne ji dugg na fii daanaka duñ la gëm gëm gëm gëm gu tax ñuy wax ñuy gëm waaw te xërëm mënut a yem ak lenn xërëm mënu alxuraan mënut a ak xërëm ci dara xërëm loo loo xamante ne amul ay jeexantal boo ko tàmbalee léegi danga nga dee dee gu ñaaw mu jugu mu jugu ñaaw wala xos bi la mën am xaalis léegi waaye mën nañ laa tere tëjee téere alxuraan mën nañ laa tere dugg ci jàkka mën nañ laa tere dugg ci armeel te wala xos bi la loolu yàlla na ci yàlla léegi nit ñi nga xamante ne ñoo bëgg lu baax alxuraan yàlla ji lu ko gën a gaaw amul gis nga alxuraan boo koy jëfandikoo waxuma la nga koy sangoo mooy boo koy jàng rek leer gi suñu borom di def ci yow leer nañ ñi goo xamante ne doo gis fenn suñ borom mooy tàggat nit ñi ñuy daw di ñëw di la wut si foofu la jamono toll mais nag maa ngi yeewaat nit ñi maanaam sàkk sarax nañu sàkk sarax asadaxa daxul bala gis nga jox benn doomu aadamam lekk moo gën tabax junni juma jox benn doomu aadama moo gën tabax junni juma nit ñi nañ dimbali nit ñi fii réew mi toll am na ñoo xamante ne dix mille francs boo leen ko mayee dootuñ ko gëmee ci adduna maam lu ñu war a liggéey un mois la kon de Cheikh Bara du am problème moom xanaa. am su ko social la looloo tax maam moom ñu mën a ànd moom damay toog ba ci àgg moom moo koy jëwee ne ma xam naa ne adduna ngeen ne social dama koy wax. gis nga yàlla doo ko nekkal ci jàmm ñi mu ko doon na nekkal sa bopp yàlla ku ko nekkal jàmm ñi mu la mu wut la ci sa bopp ndax mu xam nga dépense yàlla ko yor li sama sëriñ boo xon sëriñ Saliou nee suñ borom sàkk na ko ku ne ak ñaari biir sa biir jëmm ji buum la yitteel ndax suñ borom warul na la fa def waaye sa biir bàmmel na la yitteel loo loo fa jëfu doo ko fekk foofu la jamono toll nag jëf lu baax moo jafe ba dox loo ci def lu mu tuut tuuti rek da ci da gis bunt yi suñ borom leeral ko ci. la góor ga waxoon rek nañ bàyyi compte banque yi te def si compte bàmmeel yi. xaalis xaalis si compte loolu du xaalis wax la ko tey mm. xam nga xaalis lan la. xaalis kër lay doon wala ay tool yooyu bay yaa wala matériel bu taxaw mais xaalis si compte tôt ou tard yàlla mën naa dogal ko ko jël si léegi waaw mën naa bañ doon sa wërsëg mën nga koo liggéey ba pare teg ko maanaam nga xëy soo gis dara loo xam ci nga koy dugal te la nga koy dugal sax alal naa a làpp mën naa yàq alal jëpp moo tax looyal rek bokkoog nit ñi dàggal lépp kon wax dëgg yàlla ñu ngi waxaat ne wax dëgg yàlla tey moom kontaan nañ kontaan te am waaw ndax boobaak léegi suñ baara bis bu set moo ma ne ma kañ ngay génn kañ ngay génn ma ne ko tey moom wax dëgg yàlla naa sacrifice sama bopp fexe génn incha allah waaw ñu ngi wax daal incha allah rabbi képp koo xamante ne bëgg nga ubbeeku wala nga yor place di jaay mu taw a jar wala ñi nga xamante ne dañoo ne bitim réew bëgg gërëmkat wala passeport bitim réew foofu wala dugal wala dugal defis ñu rejeté la nga bëgg a dugalaat kayit incha allah rabbi wala wax dëgg yàlla rab jàpp la wala sayaatiin wala ngelaw ndax ñi ci ëpp fi ne dañ naan rab leen jàpp li ci ëpp dañoo lekk tooke liggéey wala kortu loolu loolu lañ leen def moo leen jàpp bañ naan rab ba lu mën a xew day jàpp na rab la te fekk na boobu dañoo lekk bu dee tooke nag ak rab maam bu dee tooke la ak liggéey loolu moom incha allah rabbi bu ànd ak dogal yàlla ci ñett fan lañ koy dindi bu ànd ak dogal yàlla Ah. mbokk mi jàppal képp koo xamante ni tooke wala liggéey mi ngi sa yaram nee naa la moom mooy borom jinne yi waaye mu boowu ko nag kii boo ko xoolee sax xam ni taalibi rek la jëlal sa téléphone nga def 77 108 79 79 wala nga def 77 391 08 08 77 391 08 08 kii mooy sëñ Xaadim jinne nit ki nag bëgg na seetlu seet moom bokk naa ñu ko dàq ci réew mi moom. loolu la loolu laa bëgg nag. man man li doon wax dama koo xam. waaw seet moom seet moom. ci xaadim jinne seet moom seet moom yàlla dimbal nañ ci. ku ci yàlla dogal ñu dégg dañuy seet ci téléphone dañuy seet ci ramli day seet ci ndox bu dee listixaar nag moom trois mois yi ci kanam moom dañ koo tëj ndax ñun ci jël daa bari te duñ bëgg wax nit lu amul ndax day xool suñu diggante ak suñu borom mais seet moom xaalis bi ko kullu bokk nañ ci ñu ko dàq ci réew mi waaw te kuñ seetal da nga xam ne moom bu bu bu bu bu yàlla dogaloon ñu mën am sutura tuuti sax day génne téléphone bi wax la fii jaar ak nit ci chat. waaw waaw waaw waaw. kon daal nit ki daal bu la woowee téléphone sax mën nga ko seetal ci téléphone bi. moom kay wala bu la neexee une heure temps laay may wala trente minutes leeral na ci yow ak waxtu wu mu too bu weesoo ginnaaw timis yow mi nekk Italie Brésil France États-Unis nekk fépp ci àdduna bi Canada bëgg ñu seetal la waajaa ngi nii. nag yombul. waaw ah, dama koy wax fii. ah waaw waxal bisimilah. waaw ah, seet gi yombul. waaye nag kuñ ci seetal ba pare. incha allah bi ma xam naa morom joo am wala koo am da nga koy indi incha allah. lu baax lu yomb de lu baax moom da koy jar dëgg. waaw seet gi moom incha allah rabi yàlla dogal ba defal la ko ba génne la say sarax nga génn ko gis nga nit bu xamee saraxam rek alhamdulilah. pensa da ngay togg sëriñ moom la tuur deret baaxut fekk na tuur deret moo ci sarax yi da ngay da ngay yennoo saraxe tuur deret ceeb te fekk na yow xaalis mooy sa sarax. am ñoo xam te ne soow mooy seen sarax mais sarax bi universel mooy mburu gis nga mburu yamut ak dara mooy li gën a yomb te saa su xëy nit ñi dañ koy rang 21 kilo mburu dama koy joxe bis bu yàlla sakk chaque dimanche koo ko saxoo di def suñu borom dana la suturaal. 21 kilo mburu waaw chaque dimanche chaque dimanche ku ko saxoo moom kenn du la dimbali bu ànd ak dogal yàlla. bu ànd ak dogal yàlla métti wut matut 5000 francs sax ku ko mën a saxoo nga saxoo ko. chaque dimanche waaw chaque dimanche. kon nag yi jàpp leen ko kooku mooy sëñ xaadim borom jinne yi moom moo leen ko wax nee na dimanche bu jot. fexeel ngay saraxe 21 kilo mburu lépp loo yóotu rek di ko jot sëñ Xaadim waaw ah. ñun daal ñu ngi santaat yàlla bu baax <laughs> di leen gërëm xam nañ jotaay bëggoon nañ mu yaatu waaye xam nga gis nga tamit gan yi may xaar fii waaw boobaak léegi xaar bi yàgg damay jégalu ci toogaay bi waaw di leen sant daal di leen gërëm baax léegi rek sëñ bi dañ koy annoncé beneen numéro bii di ñëw mooy dañu bëgg waxtaanee ci ubbiku ak ku am jafe-jafe ay kayit bëgg ci waxtaan semaine bii di ñëwaat incha allah bu ñuy waxtaan ak señ xaadim borom jinne yi loolu la ñuy waxtaanee waat sëñ bi ñu bàyyi la na nga tëj may ma ko benn site internet nag waaye sama xarit bii sitam bii lépp may naa ko waxtu wax waaw waxtu def gis TV moom maa ngi gis liggéey bi ni muy yokkee ak nit ñi ngi koy siwuree wax dëgg yàlla sëñ Bara ñu ngi koy encouragé nit ko am jom la nit ko am ay bëgg-bëgg la nit ko social la nit ko mën a dimbali nit la nit ko dëgguy la itam waaw sama xarit la xam naa ne ñaari moom du ma wax ne du dem fenn fu bari de waaye saa su génnee këram sama kër gi la ñëw waaw waaw loolu moom da koy toog ci jotaay sax di ko wax waaw sama xarit la lool maa ngi ñaan suñu borom yokk ko kattanal ko ndax nit la koo xamante ne daal mën na roy kay daal waaw bëriwaat na bëriwaat na looy dox ci nit gis ay qualité yi nga gis ci moom nga gis ci nit maa ngi ñaan suñu borom yokk ko yokk xéwalam guddal fanam ci barke Cheikhul Khadim ba lii doon ab télé doon ab rajo ci barke Sëñ Tuubaa jàpp leen turam bu baax Khadim Jinné ngi noonu ah macha allah téléphone bi mooy 77 108 79 79 wala nga def 77 391 08 08 sëñ Xaadim ñu ngi lay sant di la gërëm. ñoo la koy delloo wér jaajëf yaram. kon jënd yaa ngi fii nii. <laughs> maanaam waa jënd yaa ngi fii incha allah. <laughs> jërëjëf sëñ Xaadim. <laughs>